mi ngi promettre dans quelques instants def une importante déclaration loolu lépp ci dal daal di ñëw si nu mu gën a yaatoo waaye itam dañ itam si décision bu yees yi nga xamni ni itam gouvernement bi dal di ñu koy jël ni loolu lépp lan ma si dal di décryptage ki nga xamné que moo Ahmed dañ ci dal di ñëw si nu mu gën a yaatoo sànq ki nga xamné ne que moo général Moussa Fall nak joxna na euh, ki nga xamné que moo le général Martin donc dorénavant nak ki nga xamné ne que Martin nak moom mo dal di nar exactement euh, ñitu li nga xam nekk moo di gendarmerie nationale moom moo fa seen daal di war a mën a diriger ñu koy daal di xaare ni léegi léegi incha allah si nu mu gën a yaatoo coow li nga xam ne itam amoon na digganteeg Amina Touré ak li nga xam nekk moo di 16 ak li nga xam ni itam avancé woon nañ ko si allant dans sens mu daal juróon li nga xam nekk moo di coow nag ba tax na tey ñu daal di jox.

2024 euh, donc nak loolu lépp nekk ay ponk yu am solo donc laataa ñu daal di jël Ahmedia. Dieng daal di ñëw euh, si euh, décision bi nga ni premier ministre Ousmane Sonko jël nako à la dernière minute donc nak le premier ministre sénégalais di ki nga xamné que modi Ousmane Sonko mo daal publier benn arrêté ni ki li nga xamné que modi. tay ji le 13 mai 2024 mom ki nga xamné que modi Ousmane Sonko nak mi ngi imposé benn suspension temporaire jëmale ci tabax gi nga xam ni itam ñu koy daal di amale si domaine public bi ma ni kon nak ki nga xamné que modi Ousmane Sonko dellu si yon yoon ginnaaw mesure bi nga xam itam jël nañ ko donc mom mi ngi dal di weddi eh, ki nga xamne ne que moo di eh, Madiambal Diagne ki d'après lui eh, construction yi doxaat na littoral bi Ousmane Sonko mu dal di koy jël à travers benn arrêté numéroté 00106 32 bi nga xam itam dafa dal di viser pour dal di établir benn commission ad hoc ngir dal di war mëna mën a na nga xam itam non leen dal di occuper exactement yoy des zones ma ni Ousmane Sonko nak jël na à la dernière minute jàppale itam de commission Ousmane Sonko ak aussi le secrétaire général ñok ko du yéene di présider bokk na itam ministre bu ñu dékk finance ak wàllu ko euh, budget d'assi toftal aussi jëli gu urbanisme ak euh, collectivité territoriale, way itam ak aménagement du territoire ñom ñoo fas di assurer exactement Bob de secrétariat man ni kon Ousmane Sonko nak teg en place benn commission ad hoc la ni itam boobu de composition nak di nga ko daal di a mën ni fa itam assemblée nationale way itam euh, conseil économique social.

le contrôle bi par rapport ak exploitation bi nga xamni ne ñu koy daal di am si terrain maritime yi waaye itam mu daal di jur li nga xam ne que mu di coow parce que ñep ci daal di bokk yam ñu daal di koy moomale seen ak bopp ñenn ñi nga xamni ne itam ñoo daal di fété ci walu wunu mel donc mu nek lu am solo loo xam ne war nañ daal di war mëna bay xel donc ki nga xam ne que mu di Ousmane Sonko mi ngi woté walu transparence ak wàllu rigueur par rapport ak euh, mission yi nga xamni ni itam mu ngi koy daal di war a bëgg a tegani euh, allant dans ce sens donc nak loolu la woon euh, mu nek une information bo xam ne itam da nga ko jot à la dernière minute donc Ousmane Sonko

Eh, di ñaan yàlla également waxtaan wi am njëriñ pour ko ñun ñëpp. Mm. Voilà, merci beaucoup Fallo. Mm. Merci beaucoup Ahmed Dia ñu lay jaajëfal bu baax encore une fois alors donc dañuy daal door suñu euh, waxtaan euh, peut-être euh, si li nga xam nekk justement nga daal di faree coalition Diomaye 2024 frère woon fa waaye itam doon ko xeexal ba ji mu au pouvoir exactement alors Ahmed nous seetlu ni li nga xam nekk moo di pose exactement les premiers actes c'est-à-dire ay jalons allant dans son daal di a changer exactement le système

ñu am ci anam yi ñu jàpp ne moo gën kon je pense que loolu sentiment bi ngay njëkk am mooy sentiment de fierté ak sentiment pacifique. deuxième sentiment bi mooy sentiment wu nous avons dañu am chaque fois dañuy am la preuve nous avons grand peuple. Mm. un grand peuple constitué de grands hommes capables de faire de grandes réalisations. loolu moo tax tey mu am encore beneen sant yàlla te alternance bi dafa consolider suñu démocratie affirmer suñu leadership africain. Euh, rafetal suñu xar kanam aux yeux du monde entier kon alternance de su amaatee dañ ciy sant yàlla mais également ñu ci kañ également la jeunesse du Sénégal qui a joué les grands rôles qui a joué les grands rôles face à beaucoup de contraintes et à mm. beaucoup de mais mu mu wane son niveau d'engagement sa détermination à aller jusqu'au de son combat mm. loolu nag suñu am ci ndam li nga mën def mooy sant yàlla félicité ko féliciter aux Sénégalais, mais également féliciter le vainqueur. Ok, c'est clair. Pas, ah, pas ah, évident pour le président de Conseil de participer à une pré-élection, mm. de hmm. le gagner au premier tour, mais avec 54%, hmm. je pense. Allô Global, global, globalement, les lu ñu dund alternatif, pour le moment dame le sang la sant yàlla pour le peuple sénégalais

voilà d'abord je féliciter. féliciter le premier ministre Massonko, parce que le premier ministre moom moins qu'il met en œuvre la vision du chef et je pense donc que si le premier ministre Mansonko pose actuellement un arrêté de conservation de la décision teg commission yu du ni le gouvernement est en parfaite cohérence parce que le premier ministre est en train de travailler parfaitement bien en tenant compte des orientations du chef de l'État et ça il faut s'en féliciter parce que le réew non le président comme des orientations et le premier ministre met en main kon le premier ministre bi sant yàlla la félicitation et puis dafay dalal suñu la ñun Il Il un conseil allié, donc le gouvernemental est très solidaire l'équipe est très soudée et travaille sur la vision d'un homme à qui les Sénégalais ont fait confiance donc mm. je pense que c'est une décision très importante ma jàpp également ni acteurs yu une euh, opération de correction. dafay consommer ay comme ça le plus le slogan président Il la question du foncier c'est vraiment du mm. parce que euh, le Tu mm. le Tu Le Tu Tu Tu donc je pense que vous Tu l'année, état Tu

Il est évident que le président du a pris pour les Tiffany. Mm. Essaye a déranger un, groupe de personnes qui, ont longtemps, qui ont longtemps pensé que ce sont des délégués au Sénégal. Mm. Donc, appuyer, c'est déranger. Ils vont résister. Non, ils vont résister. Ils vont tout faire pour mettre des ballons dans les roues du président de Maïs. C'est pourquoi je dis, c'est adonnant. Le président de Maïs jusqu'au bout de sa logique avec beaucoup de pouvoir et de domination garde le gouvernement bi les ko beaucoup de fermeté. Hmm. mais garde la population bi adhéré ci qui di tout son soutien. parce que nous, ce sera des mesures <laughs> mais il y aura un lobbying très très fort qui va se poser hmm. à ça parce que bi au Sénégal ay donc nous résister il faut résister parce que <laughs>

xam naa comment le foncier marche xam naa lu mooy euh, code domanial bi et cetera. Hmm. xam naa naka la nit ñi dem def lu jubali luubal ba seen xol seen lu aw ci hmm. mais su nekkee su nekkee décret moo leen ko joxoon nag Ahmed. loo moral nanguwu ko moral nanguwu benn nit am am sans am sans kër loolu moral moo ko nanguwu eh damay rappeler ni. le plus le plus grand combat du Sénégal yi mené contre Macky Sall c'est des valeurs ce n'est pas ay ay légalité ak nangam nangam nangam c'est a comportements et des valeurs. Hmm. le bilan. kon combat boobu ñun dañ ciy xaar président Diomaye lépp loo xam ne c'est immoral lépp loo xam ne c'est amoral non il faut l'arrêter. maintenant après on verra ce que le droit va dire ce que le droit va dire c'est autre chose mais luubal luubal moom dafay di ko rek daal di ko yokk ça se fait partout tout le monde le sait. Hmm. dañuy dama dama doon def seen i këyit ñu paree am ci suuf li jëm ci ay këyit signature dem ci ay signature signature loolu yomb rek hmm. mais tu ne peux pas tu ne peux pas utiliser de de affaire utiliser loo xam ni te jël loo xam ne teguñu ci yoon moom la ko après ñu jël ay këyit da ngaa daal këyit bëgg légaliser exemple euh, maître Doudou Ndoye nee na Diomaye ta nekk un inspecteur des impôts ba pare bëgg a nekk aussi un inspecteur des domaines benn nit mënu ko euh, accumuler yooyu de li nga xam ne que moo di fonction lan la si tontu concrètement après le Sénégal, l'unité les universitaires et les intellectuels. le nous, au final, nous pas beaucoup du bas. Nous avons dit, nous avons dit, il n'y a pas à théoriser les à 14 heures. Et nous avons dit, nous le président de la République, le premier des Sénégalais, il occupe toutes les fonctions, il est le de toutes les fonctions. OK pourquoi nous Aujourd'hui, ce n'est pas, pas, le gars des impôts et C'est Jamaï Faye, président de la Cour lui élu à 54%. Il est le chef de toutes les fonctions du Sénégal. Il peut agir à tous les niveaux du Sénégal. Mm. Il faut qu'il a le discours de. Voilà, mm. Jamaï n'a pas la part jamais n'a pas la part de la République. Et c'est son droit de rôle, le ramener tout

Euh, par rapport à maison yi ko de manière illégale parce que euh, euh, Descos ce mi ngi di xaar ko xam nga yow ko quand quelque chose illégal démolition, comment dire quand illégal la démolition qui devient légale. ok que c'est des acquisitions illégales des acquisitions irrégulières des acquisitions. Il jógee ci ay procédures hmm. si vous prouvez si vous prouvez que c'est illégal mais la démolition devient légale maintenant l'État a toutes les les possibilités de mettre ça ensemble de faire une transition de justice voilà passer par des procédures normales mais quand une acquisition d'un et la construction sont illégales la démolition devient légale ah on donne la alors euh, donc mi n'avons que premier euh, point bo xamni tam dougné c'est donc à la dernière minute Ousmane Sonko teg na benn commission ad hoc alors euh, monsieur Diagne, ñu dal jalla ci ben point exactement